asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Pastef Touba yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ci ne turam ak santam di leen baalu àq ci koor gi ñu génn ak koor gi ñu ne te di leen baalu di ñaan yàlla lépp lu ñaan yàlla ci koor gi suñu borom nangu ko te bu ko nangoo mu def ko ci réew mi yàlla suñ borom subhaanahu wa taala aar senegal sàmm senegal ba yéene yi nga xamante ni ñun ñëpp am nañ ko ci projet bi ba tax na. deux mille quatorze ba léegi bi ñu parte parti ba léegi ñenn ñi dem ci kaso ñenn ñi am ci ay blessures yu dul tane ñenn ñi ñàkk ci seen bakkan ñenn ñi ñàkk seen liggéey li taxoon ngeen koy def mooy Sénégal soppeeku yàlla ngeen ci am ndam la foog ko seen njort yéen ñëpp yaakaar ji nga xamante ne Touba am na ko ci te man ma nekk ci bopp liggéey bi tax ngeen mobiliser wu nii engagé wu nii ba tax ñu fal président Bassirou Diomaye fal leen mu rafet wi. yàlla bu yàlla tas yaakaar jooju yaakaar jooju yàlla na ko yàlla mottali ba ayam gi gën a jëg Touba ci mboolem ay bu fi mas jaar def Touba noo xamante ni ñun ñëpp day nekk yéex naa jot ci bopp réew mi yàlla na ko yàlla def maa ngi bala àq ñëpp nag ci loo xamante ni yëg naa ko yëguma ko ndax ànd ab ànd dafa xaw metti waaw léeg nga tooñ nit te doo ko yëg moom daal lépp loo xamante ni dox na sama diggante yéen maa ngi leen koy baalu ak bu baax a baax a baax a baax a baax a baax te di leen baalu àq waaw ci lu mu yëg lu mu yëgul nag kenn ku nekk ci yéen lépp lu mu yaakaaroon ba tax mu sóobu ci projet bi ànd ak président Ousmane Sonko yàlla na ko ci yàlla defal lu faw ko tam yàlla mën na ko yàlla na ko def waaw képp koo xamante ni am na ay blessure yàlla na ko suñu borom may wér mu delluwaat ci ak njabootam koo xamante ni ñàkk na ci liggéeyam yàlla na ko suñu borom may feex mu am liggéey mu gën boobu. képp koo xamante ni ñàkk na ci bakkanam yàlla na yeewoo ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikhul Khadim waaw kàddu sant ak ngërëm <coughs> amuñ ko sax pour yëkkati ko pour sant leen ndax ni ma ko waxee léegi rek njiit dafa metti surtout nag nga jiite ñoo xamante ni ñoo la mag ñoo la ëpp xam-xam ñoo la ëppale lépp <coughs> mais xooluñ loolu lépp lu jul topp sa ginnaaw boo jógee ñu jóg and ak yow gën laa gëm projet bi fuuf kon yéen méritoo ngeen sant méritoo ngeen gërëm kon daal maa ngi seeral yàlla ne sant naa leen gërëm naa leen di ñaan yàlla nag yaakaar ji ñu am ci projet bi yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala bu motali barke Cheikhul Khadim man la honorable député Cheikh Thioro Mbacké jërëjëf